Lune Diassé maa ngi lay ziar la ndokkale ci euh, safar gi hmm, Aliou Top mon frère di nuy internautes yëpp vraiment di am mbégte ak kontaante encore une fois. mi ngoog Aliou Top ñu ngi doon waxtaanee ci lu ñeel wàllum euh, média yi waxtu yu boo xoolee tey xët yi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci lu ñeel fisc convention ba ci yenn ci xët yoo xam ne waxtu yu génnatul jëmale ci jafe-jafe waaye lu njëg njaag dañu ko jiiñ rek bu ñu sukkandikoo ci yenn xët yi jiiñ ko nguur gi nga xam ne tey ñoo fi toog. jëmale ci daal nañuy jéem a fexe ngir euh, tëj yenn ci maison de presse ak i xokkatal euh, loolee tax waa CAP alerte jëmale ci li nga xam ne mooy situation bi actuellement sa gis-gis déjà tu es bien placé pour en parler. oui et nuyuwaat bu baax euh, les internautes de Sénégal juróom-ñaar alors euh, bi il faudra ñu def nag la part des choses alors la presse elle est victime d'elle-même ñu nangu ko ñun ñëpp. presse bi mooy xeex presse bi loolu mooy li gën a leer ñun am na luñ ci xam ma commencé par CAP CAP na regroupe pas toutes les associations de la presse sénégalaise boobu benn anomalie la et li boroom xam-xam bi doon wax mooy tout ce qui se fait pour toi sans toi est fait contre toi mm-hmm. mun a wax ne coordination des associations de presse bu Sénégal nga nga tànn yéen ñiy ànd wala ay xarit mm. ngeen def ko affaire copinage bàyyi ñeneen ñi alors ñeneen ñi lan lañ lay xoolee mm. mooy waral tout le temps comme wu presse bi ñëpp duñ ci demandoo mm. benn benn yoon presse Sénégal ngay gis maison bu ne bëgg beneen bi tëj pour que moom mu survivre la stratégie de dumping moom moo gën a bëri ci lu ñu bëri di def ci ci presse bi mën naa exister rek na ñeneen ñi na ñeneen ñi dee ba bu même boo nekkee une voix autorisée boo demee ci une autorité pour parler au nom de la presse nga xam ne yow boo waxee au nom de la presse moom moo lay gën a arranger tu préfères parler si sa tur yow kese que wax ci turu presse euh, presse bi yëpp non ah, boobu moom amul ci ci bi qu'on se dise la vérité mm-hmm. mooy ki nekk foo mënti nekk ak station boo mënti nekk ci presse bi mm-hmm. jàppal ne sa rôle ak sa ni ngay liggéeye ak ni ngay waxee ak autorité yi loolu moom moo nakk problème bi nga xamante ni moom la presse bi di am mais bu ñu fexe woon ba ñu yemale lépp mm-hmm. jaarale lépp ci yoon konoon problème mën na bañ a am maintenant pour man c'est très nag actuellement ñu jël problème bi teg ko ci ci nguur gi crise la bu nga xamante ni ça date pas d'aujourd'hui mais peut-être ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon auparavant essayé woon nañu manager ba nga xamante ni au moins eh, yenn entreprise de presse yi du ñu doon souffrir comme ni ñu souffrir aujourd'hui mm-hmm. man dama jàpp ne en trois mois bu ci entreprise tëjee parce que sa modèle économique quand am na amoon na défiance mm-hmm. parce que bu fekkoon da nga am modèle économique bu nga xamante ni c'était viable Euh, en trois mois waroo ci mën a déclarer faillite alors Mamadou Ibra Kane par exemple de Stades ou de Sunu Lamb man j'ai la chance de côtoyer mm, Madame Kane on a parlé si Sunu Lamb ak Stades depuis 2019 donc c'était des entreprises yu nga xamante ni véritablement dañ doon dañ doon lijjanti ñu koy ni ñu koy defee et qu'il y plus de la publicité pour ñoom vente bi demeewul noonu man xam naa si dara am na quotidien bon fan yëpp gis ngeen na génnul sax d'ailleurs <laughs> donc la crise moom ci <laughs> si euh, presse classique bi dafa dafa laal fépp mm-hmm. donc y a pas de la publicité hmm, vente bi demeewul noonu parce que moom boo jaayee doo mën a def recouvrement bi mm-hmm. et que tu dépenses énormément d'argent pour nga tiire ko et am na ay dépenses yu nga xamante ne dañ lay xaar boo ñëwee nag ñu ne la alors maintenant dañuy revoirat les conventions ak la presse ñu dagg euh, convention yooyu noonu non seulement yaa ngi doon souffrir mais la nga soxla woon sax di ci def ay lii wóor na leen léegi mënatul mënatul nekk. Mhm. léegi su préfères nga. arrêté sa engagement yi nga xamante ni da koy am parce que ki ngay liggéey loo bu weer dewee la kulli xaal da koy da nga koy fay maintenant tout ce parle de problème de fiscalité ak yooyu je suis d'avis avec euh, Thior képp ku nga xamante ni def nga warloog dara ak nguur gi wala état bu Sénégal c'est pas nguur gi même état bu Sénégal da nga collecté ay TVA nga joxe ko mais par la plupart du temps ni ko gars yi di expliquer demeewul noonu mm. ils te disent oui da nga am ay salariés na nga leen di dagg TVA na ko war a verser mm. non mais am na ñu nga xamante ni seen contrat amul TVA bu ñu ci dagg et pour la plupart du temps par exemple yenn convention yu bëri sont facturées hors TVA donc kooku collecté wul benn TVA et ñun ñëpp xam nañ ne les entreprises de presse li ñuy dépenser moo ëpp li ñuy def comme bénéfice et à la fin de l'année booy def sa bilan mais li nga xam ne moom nga def dépense mais loolu doo ci fay benn impôt donc bu fekkee dañu am problème ci def forme beeg nu mu war a demee pour def les déclaration à mais bu fekkee par exemple nga ñëw nga gis ne ah telle entreprise day gis naa ko am na convention fii fii fii fii fii fii bon donc li muy dajale année bi yëpp dafa bëri donc xaama yónnee ko redressement fiscal yow mi koy def noonu yaa ngi juub te yaa ngi également di tooñ entreprise boobu noonu nga yónnee redressement fiscal boobu noonu bien que ni am na ay convention mais convention yooyu noonu il faudra nga xool ndax respecté na norme yi parce que boo amee convention da ngay dem d' abord enregistré ji ko li ko def et tout tout tout tout sa ki nga xamante ni moom moo moom euh, moom moo signé convention bi kooku moom mooy verser TVA bi directement donc je pense que ne institution yooyu noonu la ñu war a dem pour laaj laaj leen TVA yi léegi nag ñu door a ñëw dans les entreprises pour xool ndax respecté ngeen normes yi nga xamante ni moom moo am pour parler de l'aide à la presse mm, état bi wala nguur gi amul euh, sañ-sañ wala yelleefu dakkal ko loolu mënul warul ne parce que mm. c'est un budget bu nga xamante ni ça a été voté à l'Assemblée nationale mu nekk un droit comme ne école yi nekk Sénégal yëpp ni ñu jotee subvention noonu la hmm. euh, presse bu sénégalaise war a jotee subvention parce que si mission la nekk si service public lay nekk donc dafa am benn appi bu nga xamante ni état bu Sénégal daf ko warloo ak moom donc il faut pas ñu ñëw di jax se mbir yëpp mooy que ni ñu xam ñoom lan la ñu war a def pour la presse ñu def ko hmm. maintenant nag ñoom ñoo am liberté bu wax ne conditions yi lañ koy joxe et je pense que ni depuis quelques années ñu ngi doon respecter quand même euh, yooyu mooy que ni pour nga mën a bénéficier aussi fonds d'appui euh, à la presse il faut nga am tant de journalistes yu am carte de presse nationale yu am contrat signé à l'inspection du travail nga am quitus fiscal nga am sangam sangam sangam selon critères yooyu noonu nga am nombre de points ci loolu la commission bi di regrouper wu xool kan la ñu nangam nangam nangam nangam et ñoom ils ont fait leur système pour am euh, xam kan mooy kan kan mooy def lan kan moo nekk fan et man je l'ai toujours dit mooy que ne aujourd'hui suñu autorités yi li ñu war a def ak presse bi ñoom loolu la ñu deful mooy instant bii nii ñoom mënuñu la waxal cartographie wu presse sénégalaise bi mm-hmm. mënuñu la wax ban entreprise moo nekk fan mm-hmm. et bu fekkee ne sa bureau rek ngay toog toog na way indil leen ma ñu indil la feuille remplir si ñu dem et jamais yow doo jël sa euh, benn euh, nit buy liggéey ci yow ne ko ah aujourd'hui kat on va aller Sénégal 7 xam ñoom fan la ñu nekk nan lañuy ñuy liggéeyee ñëw visiter xool kan moo def ñaata investissement la ñu def nan la ñu mën a def ba nga xamee Sénégal set dina mën a gën a yokk li muy li muy def naka ngay def pour nga dem beneen entreprise nga xool lan la ñuy def boo demee gis ne ah kii kat tur rek la exister kooku nga xool Ah, parce que gaaw nañu aussi ci dénoncer mais daf ci am ay entreprises yu bëri yoo xam ne sàmmonte wuñu ak yoon fajar bi boo xëyee ci une rek buñ ci taxawee da ngay gis cinquante ou bien quarante ñoo ko moom ak fan lañu bokk peut-être pour ci secteur yi ci loolu dañ waroon gën a mën a focus. bien bu ñu amee problème ñiy liggéey ñoom ñooy subir les conséquences parce que dañuy wëlbatiku ne ñoom dañu nekk ci problème dañu obligé arrêter leen suñu ñeel seen contrat ak yooyu voilà c'est mais mais euh, euh, Fatima ni la ko gars yi di waxee ci kaw. ak en réalité li am. dafa sore. c'est-à-dire nit mën na la wax oui man sama entreprise mu ngi am sa peut-être journal buy génn tous les jours nga di ko gis mais en réalité rombul cinq personnes yu fa nekk. cinq personnes sax bëri na après il te dit. que ni oui vingt cinq personnes ñoom ñooy dem en euh, au chômage mais vingt cinq personnes demuñu au chômage. lu ci ëpp benn infographe la ak euh, peut-être ñaari nit yu bind. Mm. et ñu def seen journal génn. et léegi ñooñu bu fekkee ni état bi wala ñi nga xamante ni ñoom ñooy yor service ministère boobu ñu ngi doon def liggéey bi war. Mm. bu ñu doon dem di visiter def cartographie wu presse bi dinañu xam kan mooy kan kan mooy def lan. Mm. bu ñu defee loolu sur la base de ça ñoom ñu mën a euh, def seeni critères xam ne kii lii lay def kii lii lay def kii lii lay def et sur ça je pense que nii après ils vont régler le problème mais ci ni ñu bàyyee presse bi ba fii mm. déjà si création d'entreprise de presse bi bu njëkk bi boobu moo gën a nekk problème mooy que ni da ngay créer ba pare door a yëgle mm-hmm. loolu c'est un problème mooy que nii du demoo def yenn yi quoi da ngay dem def décla génne. Mhm. sa numéro zéro. Mhm. def déclaration bi dem defi euh, dépôt légal dem wuti numéro ISSN door ñëw commencé exercer. d'accord. ni nag am na ci ñu la tënk pour euh, xam kan mooy kan et mais loolu yëpp. Mhm. amul vérification derrière ay papier rek lañ leen laaj nga ñëw jébbal ko bu fekkee adresse la mën nga joxe adresse bu nekkul noonu et cetera et cetera et cetera donc je pense que ni quelque part ñoom ñoo fayir seen mission si si yenn mbir yi mais aussi presse bi war a xoolaat bu baax seen taxawaay parce que bu fekkee ne c'est une press bu nga xamante ni euh, ñi fi nekk bëgguñu développement wu secteur boobu noonu parce que ni ñuy xalaatee mooy dañuy xalaat ñoom cundung euh, kenn ku si nekk bëggoo jox loxo keneen pour mu avancer mais ça c'est également un problème et que bu ñuy former ay kuréel yu nga xamante ni c'est pour xeex intérêt wu presse bi mais ñu def ko ci façon bu nga xamante ni dañuy euh, boole ñëpp mais pas exclure ñenn ñi pour xeex ne da ngay xeex ak presse bi te ñi ngay exclure noonu gënoo leen bokk ci mbir yi. donc je pense que loolu lu ñu war a corriger la. au la de presse bi juboo presse mooy vitrine démocratie. Uh-huh.